xaw a di la xas ci biir live di la xas ci biir nit ñi di la minimiser loolu du respect te maman loolu lay def nogay waaw d'accord ma ma de nogay il a per elle a parfaitement bi yoon moo am dëgg beneen bi ci tegu euh, mooy nogay kara su ma doon yow la du jaxase de du tamit seytaane mais bu ma doon yow la am nga visibilité nogay am nga ñu lay seetaan am nga ay nit yu la bëgg te yàlla tax nga ubbi sa propre marque sa business bopp su ko defee doo xulloog mama vulgaire ba ñu lay yab wala di la xas wala ngay dem ci maam Ndiaye Savon ñu lay xas wala dara nga ubbi sa marque bopp comme ni ko Baye Zal Kalson defee mama defee ko noonu maam defee ko noonu. ku nekk ak la ngay jaay wërsëgu yàlla yàllaa yor nit kenn yorul kenn ma maa yorul sa lekk yorul sa naan yàlla moo yor nit boo ubbi woon sa business dëggal sa bopp sénégalais yi wuy si maam sa Savon wuy si la mën nañ laa wuy si parce que teraanga doomu aadama dafa yaatu yàlla mooy maye ñoom mayewul ah ah man na am nag seen wërsëg yàlla ci ñoom na ko jaarale ba nga defaru moo bu ko fa jaaralee ba nga defaru nag da ngay fexee gën a defaru ubbi sa yëfu bopp kenn du la yem mais tant que yaa ngi langaamu ci ay nit wala di dunguru ay nit wala ngay cogg ay nit wala di business ak ay nit yu la respecté wul ci minimiser la rek la di dëkk lii mooy yoon bu fekkee yaa ngi déglu samay conseil la même chose ngay def comme maman Vulgaire maman dafa nekkoon ci maam di liggéey ba mu liggéeyee ay coow yu ndaw am mu xam ne ña nga ko fa yàpp wala respecté wuñ ko wala dañ koy minimise mu ne day dem ubbi yëfu boppam yor place boppam dina juboo mais dootul mën a demati ci place ba ndax yëfu boppam lay ubbi te business su boppam lay def dëggal boppam nag ba Sénégal ràññee ko ci mooy première point yow nga ñëw fekki ko ci si business am ñaar génni business tey yàlla dimbali na la ba nga am visibilité nit ñi xam la ngay safal live yi am xorom lool. ubbil sa marque bopp yow tamit kenn du la yëpp nga nekk sa patron bopp am say employé dëggal sa bopp kam ñëpp bu boobaa kenn du la la nogay karaa dof nga wéroo nogay karaa yaa ngi may tufli ba ngay xeex ak moom déedéet bu boobaa sa patron bopp ngay doon loo def yaa tey sama gu bopp nga mais tant yaa ngi topp ci ay ginnaaw nit doo dara nii laa ko jàngate bu fekkee na kàddu yi dafa am lenn loo xam ne nii dafa ñagas maa ngi ciy jéggalu ndax bëgguma tooñ sama avis rek laa doon joxe ci maman vulgaire di ko joxe ci Nogay Kara waaw sama jàngatu bopp la loolu waaw mooy sama jàngatu bopp waaw ci ci ci yow ci yow Nogay jëm ci yow maman tamit ma wax ko conseiller mu war koo dégg parce que lii mooy àdduna parce que nit ki mën nga koo defal àdduna ak li ci biiram mais tant que respecté woo ko la nga ko defaloon moo zéro ñoo yem parce que maman dama ko yàgg a seetlu bu nogay karatoogee mu naan ko yàgg may tufli nogay waxal ndànk sa tufli di mi ngi wadd ci man di ko wax ay wax yu minimiser ci live àdduna bi yëpp di seetaan loolu foog naa rafetul rafetul de ak di ko yuuxu nekk lu rafet naayisul dara barki sëriñ Babacar kes waaw léegi nag. man bu ma waxee ak maman vulgaire dafa war parce que mam maman man ak mam maman vulgaire ak maam Ndiaye Savon ay at ñu ngi ànd booba kenn xamul maman ci réseau yi kenn xamul aadama ci réseau yi kenn xamul maam ci réseau yi ñun ba ñu xamante internet amul ñun ñett ñi xamante nañ bu baax ci suñ biir su ma ko tegee di waxtaan ak moom di ko yedd lu war la ndax moom xam na ma bu baax man ma xam ko bu baax on se connaît très bien man ak ñoom danoo yàgg trop. lii mooy àdduna soppante ay xalaat waxante ay conseil man nag waxuma ak benn bojo bojo wala ab dofu ma ma ma mama wala ab dofu euh, mama jóge fële ci àll ba naan ma waaw da nga war a dàq nogay am na dof bu ma gis mu commentaire naan ko nogay da koo war a bàyyi waaw respecté wu la war a bàyyi nogay nogay respecté wu la nangam nangam qui di la porte perché hai aperto la porte qui di la Quindi tutto. Anche questo. Sì, quindi per bene. Ok, yaa ngi may si ay nogay respecté wu la ah nogay nogay da war a dàq yéen seytaane saytaane yéen a naafiq yéen a naafiq yéen a saytaane yéen ay nogay da koo war a dàq ci la koy dàqee eh? te nogay elle a yaayam bu waree wax ak moom la muy wax ak moom secret la la muy wax ak moom même bu ko dee yuuxu di ko minimiser mais moom ak Ndogoy la waroo gis muy wax ak yaayam plein live nga taal sa live ubbi say micro àdduna bi yépp di dégg mais nan dëgg loolu du yoon nii la bi demee maman mënoon naa fay micro bi walla maman mu fay live bi ba yaayam dem ba pare maman war nga bàyyi tamit benn affaire saa yooyu xulloog nit da ngay bàyyi ba ay gan ñëw ngay xulloo de respecter sa bopp di respecter sa image bala ngaa xuloo wala ngay xeex nit da ngay bàyyi sax au moins ba gan yi nga am pour respect ci gan yi ba nu dem ba génn nga xulloog moom mais da ngay bàyyi ba ami gan gën a raakaaju loolu du yëfu normal du yëfu nit ay gan boo ko amee da ngay teral gan yi siggil gan yi bu manque bu leen woon benn manque de respect te bul def loo xam ne yi dañ la ciy xeeb. mais yow saa yoo amee ay gan da gën a rakkaaju boobaa ngay mu gën a mën a xuloo bu boobaa ngay gën a mën yëfu dof ci biir gan yi loolu kenn du ko def boo amee ay gan da nga leen di dalal bàyyi ba gan yi dem li ngay réglé nga réglé ko. du dëgg. léegi nag gars yi bu leen fàtte nag le 7 décembre Wally Ballago Seck le 7 décembre mi ngi ñëw Adidas Arena Adidas Arena nag salle bu mag la maa ngi ñëw mais il faut ma jàllale ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay kii parce que ñun amuñu lu dul faramarin bi ñun amuñu ku dul Wally waaw waaw bu engagé ay dat yu mag dañ ko cee war a jàppale waaw Faramareen bi gaa yi Wally Ballago Seck dafa jël salle bu mag muy Adidas Arena Adidas Arena nekk salle boo xamante si nii amul benn africain bu fa mas a joué moo nekk premier africain bu joué ci salle boobu Adidas Arena plus de quarante mille place ma ñëw. plus de quarante mille places lay Adidas Arena di def te Wally dafa jël salle bi yépp mu nekk salle bu mag ñu war koo jàppale soutenir ko parce que 7 décembre li ci des bëriwul te semaine bii ñëw flyers yi dina génn billets dina génn di leen wax dinaa leen wax man Adamo link bi ni jaayee billets yi dinaa leen wax tamit waaw dinaa leen wax link bi ni jaayee billets yi dinaa leen wax tamit ah yan ak yan euh, zone la ñuy jaayee bee yi incha allahu rabbi le 7 décembre Wally Ballago Seck ca Paris Adidas Arena bu ko kenn tardé Bas Thioune Bas war na ñëw le 29 septembre bii Barcelone waaw 29 septembre Bas Thioune mi ngi biir Barcelone incha allahu rabbi dëkk Sokono stress dégg naa Sokono nag muy publicité ak Bas mais gaw ma mu ñëw. ndax ñi mu tooñ bari te dafa ragal la tàppet na du ñëw ci ay concert mën na laa publicité nag mais du fekk bis ba waaw le 29 Bastoun mi ngi biir Barcelone septembre képp kuy yeewoo zone Barcelone yaa nga xam ci Catalonia bi jàppal ne Bas dina ñëw te dina leen ambiyaasal dina def lu saf biir Barcelone waaw xaar leen ko yéen ñëpp waaw moom dina ànd Sibeeru ah. Eh, dina ànd ak eh, dina ànd ak eh, staff bi waaw dina ànd ak Zé ñoom ñëpp dina ñëw incha allahu rabbi waaw loolu mooy li nga li nga xam ni moom laa doon jàllale beneen bi ci tegu nag may wax sama sœur bii léegi yàllaa ma booleek moom rek moo ma nattu ci moom mu nekk sama xarit nekk ko baax waaw sama sœur bii Mia Guissé Mia Guissé yàlla ma booleeg moom nag mu nekk nit ku baax ma bëgg ko ba pare ñeewantal ko ba pare am yërmande ci moom waaw parce que Mia Mia boo ko xamul la xamoo ko barki sëriñ Babacar Sy gis nga Mia mën nga wax ci moom lu bon mais gis nga boo ko xamee nga xam ko bu baax di nga xam ne Mia Guissé boroom xol bu rafet na nit ku baax la. gëm boppam yaakaarul ci kenn bëgg faramarin bi Wally Ballago Seck barki Serigne Babacar Sy Mia ah, bi Pawlish may jëlee kàddu yooyu yëkkati ko teg ko ci deram bii dama woo Pawlish ne ko pawlis mu ne ma am ah, na ko Mia sa sër la man sa frère la musuma laa woo ci dara mais juum nga tey Pawlish def nga erreur li nga def nii nii nii erreur bu mag la ndax waroo toog play life naan lii miyaa lii miyaa lii miyaa ñu koy jël di ko dagg ay noonum di ca profito defal video nga jéggalu ma yàgg si parce que danga nga juum nag ndax yow meloo nii sax mu jéggalu nangul ma ne dafa juum te dégluwaat na yëf yi ma ne ko lii bu la dalati mukk ci àddina bi Mia nit ku baax la il est extraordinaire Mia Guissé nit ku baax la gëm na li muy def àndul ak daraay wax nit ñee koy sosal di ko fenal di ko waxal lu ñaaw du tontu di dugg ci ay détails waaw man nag man Adamo ku ma déggati nga waxati ko lu ñaaw pare naa pour toj sa cottu ndey mi yaa gise mii ku ma déggati muy Cheikh Ahmed Cissé ñépp ku ko waxati loo xam ne waroo ko wax dinaa doxaan sa ndey parce que ci réew mi la nekk nekk doomu sénégalais di liggéey di citoyen sénégalais seen sœur la bu ngeen ko mënta jàppale bu leen ko wax lu bon dee leen ko jàppale di ko soutenir lu mu xewle ngeen dugg ci lu mu bàyyi ngeen bàyyi fu mu wootee ngeen dem Mia di ngeen ko war a soutenir yéen ak Mia ba yéen ak Mia Guissé ba Amérique yéen ak Mia gise ba Paris yéen ak Mia gise ba itali yéen ak Mia Guissé ba Allemagne yéen ak Mia gise ba tour du monde monde monde jeex parce que Mia gëm naa ne musique sénégalais moom dina ko mës a téye ci loxoom bi nii parce que am na gëm-gëm bi te am na fas-fas bi te dëgër na ñeme na. am na fit waaw te yaru na tamit xam nga musique benn affaire moo ko yoree boo amee talent yaru sa xol rafet nga mën a way xool leen bi ci Mia gauche wala droite dis-moi si tu vas ou bas moi ma la bu guddi gi jotee na métti na yàgg na métti na yàgg eh, loolu dafa neex voix bi moo neex ah waay sama sama sama sœur bi waay yàlla yàlla guddal safan fan dafa la jàmm mi yaa gisee nit ku baax nga de barki Sëriñ Babacar Si nit ku baax a baax nga yàlla yàlla guddal sa fan mi yaa waaw ki yaa sa waaw Adamo yaa ngi may dugal si sa live bi de. <laughs> dëkk bi wax. dëkk bi waxul dara. yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi kii xale yi de yaa leen di sànni xeer de. ah xale yi damay waxtaan ak ñoom di yedd rek xam nga àdduna amul solo. loolu moom dëgg la moom temps yi moom ñëpp ci dëgg rek ngay wax. salaam Adamo. ça va nu mu demee. Ironé yaa ngi ci jàmm. ça va Adamo ba yaa ngi cool ah, wax yi moom am na solo lool macha allah ba kàddu yi naa gis na jaar na yoon am naa si na yow rek ñu topp. jërëjëf jërëjëf ko naa. naa yow na la yàlla defal jàmm. merci beaucoup jërëjëf. yaa xam ne bu bi taale bu Serigne Babacar Si. waaw. yow rek la ñu topp. jërëjëf merci beaucoup. gis naa loolu de parce que live bi moom sept mille personnes ñoo fi nekkoon presque huit mille. waaw allié. ah. ay business baa ngi dox. waaw kii yaa. yaa merci beaucoup bari nga wax torop nga naan business baa ngi dox yan business a fi dox ni mu wéradee moom aliya mami Zara bismillah eh, yow ubbil sa lafal ndey ci suuf yow waaw taalibi Cheikh naka dëkk bi yaa ngi am taalibe Cheikh borom iPhone yi. jàmm. waaw waa acca maa lay jàll nii si live bi acca ñu dem. kooku ma doon woo léegi mooy taalibe Cheikh quoi taalibe Cheikh iPhone Apple moom lépp lu jëm ci wàllum ci wàllum maanaam defar certificat ay compte affaire yooyu rek ci loolu lay dox ci lay liggéey quoi waaw bu ngeen ko contacter incha allah numéro moo nekk nii. numéro mooy 78 969 bi ay day certifié ay compte Instagram bu ngeen ko kontaanee da koy certifié ay compte Instagram te tamit day def li nga xamante si moom mooy day jaayi téléphone iPhone boo bëgg da nga koy contacter mu livré la ko gratuite quoi waaw sama waay la taalibi Cheikh ku baax la ndeysaan mention spéciale ah rox su si ndax la pare naa ci moom dama koy teggi nii waaw mamaa ngi noonu léegi nag gaay Eva Rose xaaral ma jël Eva Rose. Eh, Eva Rose. am naa gan. <laughs> mais Eva lu dëkk wax. oui ça va Adamo lu bees. mi ngi joxe. ça va ça va on rek. yaa ngi am bu baax. waa sant yàlla bu baax. mais Eva temps yi sa tàng na. gis nga loolu. Ah, waaw waaw. oui tey kontaan naa de am naa gan de. ah. tey de nga jot naa ko waxtaan nañ. ah jot ko macha allah loolu laa doon. waaw événement bi dafa laaj bu bëri ndax dama jot ba pare quoi. c'est ça nee naa ko Ado moomu daal mooy jàllale information yi. moom nga daal lëmbale xanaa da nga dindi. waaw da nga dindi fan yii. loolu loolu. yi bëri rek. waaye luy sa ci coow yow sénégalais loo def bul ko lijjanti bopp sa bopp lëmbal gi ngay def neex na ñi lay seetaan xoolal man xam nga lan laa bëgg. Mhm. li ngay def bu neexee ñi lay seetaan bul lijjanti kenn. maa ragal ku ne ci wax. jigéen yàlla la may xam nga lan la iñaan nan def ay soxar ay jigéen nan bu leen yàlla mayoon taat xam nga sa taat yi meluñ ne comme taatu rox yi lii xam nga ne yoroo ko xaaral ma la <laughs> xaaral ma la rek. <laughs> Ado <laughs> bon. non ma ñëw rek ma wan la cest à xam nga melul nii. ay Faado ma foo jëlee lii. <laughs> dama ne ndax yor nga lii yow. Ah, moom. waaw kay kon jeex na léegi nag loolu la ni soxare nag. <laughs> wax ji bëri na coow lu bëri na ma ne balaa ñu maa lekk xaaral ma génn ci. lool la ni soxare mais xam nga ne Eva kenn du yow. ah yow boo ko waxee rek am na. Eh, da ngay moromu kenn. la wax noonu la. non yow dëkk bi da koo téye. ah temps yoroon naa bës bi de mais damaa tiit. non bës bi ba tey sax da nga koo yore da ngay da ngay gën a téye bës bi. Mm-hmm. waaw Alex Thiam moom bàyyi nga ko. bàyyi naa ko man ba naa ko yàgg na. waaw ah, baax na non yéen ñaar mënu def xam nga tax. Mm-hmm. Alex day bëgg di dóor ñeneen ñi te yow tamit doo nangu loolu. ah non man du mu waaw. naan gars yi di la ci tooñ naan investisseur nangam di la créer naan ay. ba tey ay wax yooyu dama koy dégg ma ne waa ñi ñoom fan lañ ne ban monde lañ ne. Hmm. loolu jeex na du tey yàgg na. ba pare nag bul seqe di seqe kenn wala defa kenn dara mu lay vidéo. ah non man loolu yooyu nekkuma ci bilaay Adamo. ba nangu de. dëkk bee doy waar. ah kay. bee doy waar newuma ci benn yoon. waaw bul nangu loolu mën nga def nag lu la neex parce que ku nekk bopp sa bopp. dëgg la. bul nangu ay vidéo bul nangu dara. billaay billaay. bu baax nga dangay ngay ambiance di wane sa forme bi na yàlla jagleel naanoo ay doom jëloo ay comprimé. billaay wallaay waxati ko bind nga naturel mel noonu. léegi nag boo mel ne Sénégalais yi dañuy soxla dañuy ñaan ñu ci bari ci Sénégalais yi manqué taat rek la moo tax ñu lay xas bu sañoon am li nga am. lu ne dama koo dégg ba ma tiit reculer. bul tiit nag bu reculer man bëgguma koy reculer de. yow loo wax noonu ne naa la loo wax noonu la. <laughs> mën ngaa toog ci réseau yi dégg loo xam ne man Adama Boss day néegi mi def lu ne dégguma ko. Mm-hmm, amut. nag maa gis ma reculer. déedéet. parce que maa gis may tiit wala may xof. jamais jamais. waaw léegi lan moo tax yow nga bëgg nag kii loolu. lijjanti loolu yow nee naa la Adama loo wax a gën loo ndax ñun ñii ñëpp yow la ñuy topp ñu fi ku fi TikTok yow lay topp. yàgg nga ci bu ñii am nombre d'abonnés yi nga am. li nga doon bu ñu bi nga am donc loo wax gën loo wax. Eva nga doon def bu bonoon maa lay man Adama musuma laa affiché di wax ci yow. dëgg la dëgg la def. Mm-hmm. neex na mm-hmm. te defoo bon say lëmbal nga yar di wane sa taat bi la yàlla jog leen. dëgg waaw kay bu doon dangay ngay def lu bon kay Adama mooy jël sa photo affiché la fii ñu fi def. lu bon jàllale ci Adama. wallaay wallaay dëgg piit dégg naa dëgg de. defoo dara lu aay. mën a damay bañ nag ñu teg la ay stress la nga daan dund dund ko ndax gis naa la ngay nemm nemmal nooy nii ma nefariñ booy wax sax da ngay prononcé mel ne ku ku ku ku ku togg baxal loolu ngay wàcc la nga daan dund. actrice te sama jàpp Adamo sama vidéo démb ma taxaw ne ma dindi yëpp ma dindi ko gisoo ñetti vidéo fi tas moo lay taxaw naa tëj prison bëgg maa tëj man kan moo lay tëj prison prisonnier suñu waa kër sama vidéo dindi naa ñett suñu waa kër nan la may jàmm defoo dara hmm. defoo lu bon bu ñu la déggee léegi na xanaa danañ ma bàyyi seen waa kër yi ñu ngi may dégg dama ne la man la Adama Boss day négri l'homme qui n'a rien jamais perdu de sa valeur la femme bien préparée par sa famille man maay wax ak Eva Rose tey ci live bi dama ne. Mhm. Eva Rose bu fekkoon day def lu bon maa koy njëkk a affiché wax ak moom deful lu bon. day lëmbal di fecci feccam ñi koy xas danoo iñaan parce que physique bu mu am yàlla jagleel ko mu naturel amuñu ko Sénégal ñu ci bari ku ci bëgg am ami ween da ngay dem yokkulu ci wala nga dem naa ni ay doom moom nag fekk ko ci yàlla ko dimbali mu maaleykum salaam salaamaaleykum dóor ay yu neex te rafet kontaan naa lii moom xam naa bu subaa danañ ma bàyyi ma def lu ma saf lii buñ ko déggee sa message bi dootuñu wax dara waaw def lu nga saf te nga te nga teg téléphone bi nga arrière tuuti gars yi dañ laa nam mu gëj laa gis. tey de ah, man noonu nooy rek laa def Adamo ah, nag tey. Ah.